Abdoulaye Mamadou Guissé maa ngi lay nuyu. oui Ndeye euh, euh, Comba Moreau maa ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu di voilà Abdoulaye Mamadou Guissé nga nekk homme politique président au parti Fulla ak Fayda président bu observatoire de la musique et des arts du Sénégal nekk poète écrivain diplômé en ingénierie culturelle banque finance déjà laaj bu njëkk di la wax nak nga gisee actuellement euh, situation politique gu réew mi lépp daal di jaxas jaxasoo en tant que politique ban jàngat nga si am. lañoo lajj dañoo échec parce que lajj mooy muy kuréel muy opposition bi muy pouvoir bi dañoo lajj parce que euh, ndey kumba réew mënuñu ci réew mu nekk si réew maa tey démocratie ba bu ñu demee ba ne république jëlee fi ay Lat Joor ay Alburi Njaay ay Njaajan Njaay jëlee fi euh, Damel di Kayoor ak Buur ba Jolof te parce que dañ ne nañ jëm si république république ñëpp ay yem ñëppay tolloo ak ak yelleef tey jii soo xoolee réew mi même société civile nga jël lu mel ne Afrikajom Center bu Alioune mais da ngay xam ne ñoom Pastef la ñu bokk Alioune Tine Pastef la bokk mais loolu réew moo xam ne même société civile amatu ko société civile bi ñoom ni dañoo far dañoo nekk fenn pouvoir bi ñoom dañoo banque seen yoxo di seetaan ku mu neex def lu la neex ci réew mi dem ba Touba ci biir juma Xaadimu Rasul di fa politique di fa sinap di fa def lu leen neex génn dem Mbàkke di fa di fa xeex ak ak ak ak ak nit ñi ci manifestation moom dañ la interdire nga dem suite gootee yow bi ngay dem yow yaa demal sa bopp yow kenn yóbbuwuloo fa kenn kompuloowu la kenn solu la dàll solal la yëre solo la euh, mbubb ne la demal yaa bàyyi ba guddi bàyyi say jabar say say doom nga taal sa oto àndoo garde ko ak dem fa bi nga demee ba ñëw nga violé xale bi ñuy wax Adji Sarr mu ne da nga ko violé porte la plainte mais bu la woowee yoon nga war a dem wuyu ji ko waaye nga ne balaa maa dem dinaa rey ay nit nga rey fukki nit ak ñeent le 3 mars mais état Sénégal di ko xool di ko négocier dañu naan te jël kudd jël sa kudd teg ko ci dossier Ousmane Sonko te tey la loolu la Sénégal yi doon xeex naan président warul jël kuddam di ko teg ci loxo ci conc dossier tey loolu moo am Ousmane Sonko ñu jël dossier am teg ci seen conc mais duñ kenn du laal dossier ba bu juge waxee ñu ne ko non doo wax bàyyi ba ci kanam bàyyi ba ci gannaaw suba loolu lañ ne loolu dafa war a jeex ci réew mi Ousmane Sonko moom moo taxaw ci boppam mu ne dem naa fa naam dem naa fa nii la ko waxee parce que TikTok bi mooy toj TikTok bi jamono ji toll <laughs> naam dem naa fa wax na ko ñu ni mu ko doon defee ñu defal ma ni ma niñ ma ko doon defalee moom moo ko wax donc ne serait-ce tey dans un pays qui se respecte mais ñu ne la yàgg jigéen ko xale bu jigéen bi ndax mus ngeen toog nga ne mus nañ toog seqalañ bi mais bu la perte plainte nga war dem wuy ji ko su dee violé woo ko danañ xam ne violé woo ko ñu bàyyi la nga continuer sa vie politique mais installer le pays maanaam Ousmane Sonko boo xoolee li politiciens yi li président yi doon def ay Abdou Diouf ay Senghor mooy campagne électorale permanente moom la Ousmane Sonko di def léegi maanaam ki jiite réew mi moom dafa loolu def moom mooy def loolu moom mooy moo génn ci local jëm si législative jóge législative bañ joxe résultat yi léegi léegi mu ne candidat la parce que xam ne dafa am dossier justice jël na mbubboon na justice kenn warul kenn waru ko laal mais dama lay laaj tey yow bu dee da nga fi bëgg a jëlee ku gën Macky Sall Macky bu ko fi bëgg a jëlee mais yow danga war a am da nga war a nekk modèle da nga war a gën Macky Sall koo xam ne fekk jumaa Touba dugg ci biir def lu ko neex ne man xalifa man di sama ndigal man Ousmane Sonko sama ndigal la Sénégal yi dégg dégguñu ndigal al Muntaxa Bachir bi nga xam ne maamom te Xaadimu Rasul dafa liggéey Sénégal liggéey Afrique liggéey ci àdduna bi nga ne non man Ousmane mu sell mi man sama ndigal léegi mooy moo moo féete ci kaw ndigalu euh, euh, doomu Alaaji Malick ak sëtu Limaamul Mahdi waaye léegi réew mu mel noonu yow état nekk bi état du jël kooku euh, li ko xale di wax na ko ràpp kaso ci giiru dundam parce que loolu nga def ko mooy da nga da Sénégal tey jii l' état du Sénégal dafa war a sauver population Sénégal te nu ma koy sauver noonu leen rek la mooy ñi nga xam ne violeur la kooku la ñu war a jël ne ko ñàpp ci kaso bi bàyyi ko boobu mais Sénégal laa fi continue mm-hmm. man Ablaye moom lu gisee xam nga lu may wax. man réew mi su naree continuer def nii. Mm-hmm. mais nañu nañu def ku nekk nañu dellu ci état bi njëkkoon nekk. Mm-hmm. mooy ñu morceler le Sénégal. ay buur ba jolof am fi ay lampir yu fuuta nekk si ay lampir di kayor nekk fi ku nekk sa maam nekk buur fi nga nekk ñu avancé parce que un Ousmane Sonko mënu fi ñëw ñu naan ay kii la maanaam mu am buzz ak euh, modèle la référence muy Ousmane Sonko du modèle du référence du dara man je l'ai connu maa ngi moom nekk nañ yow askan bi détourné xaalis ay coppite express yoo xam ne mu ngi jógee ay alkami fu nekk lay jógee ay yoo xam ne ñoom bëgguñ sax kenn xam fu mu jógee ñoom ñoo koy gérer seen bopp moom ak Khalifa Sall xaalis bi ñoo koy lekk ñun ñi si bokk kenn du si lekk codi sa cotisation boo xasee ba dugg sax xamatoo fu mu dugg d'ailleurs porté nañ ci plainte mu ngi yoon mais loolu sax yoon da ci bañ a dañ ci ragal teg loxoom wax léegi ban dëkk lañ nekk donc situation Sénégal situation boobu la ñun nag. Hmm. sunu suñuy mbir ci fulla ak fayda ànd ci model ànd ci démocratie ci république buñ ko mënul def ñun dinañu am suñu taxawaay boo xam ne moom la ñu taxawee man comme li ma wax ci rajo ak télé rek Ousmane Sonko dinaa ko combattre man dina ko combattre ba géej gi fer dinaa ko xeex ba géej gi fer xooluma ci ma Samba xooluma ci ma Demba ndax Ousmane Sonko li muy liggéey bés bu ne mooy frères musulmans yi nga xam ne ñoo installer kaw euh, Mali Mauritanie euh, Burkina Faso Côte d'Ivoire ñooñu la bëgg ñu ñëw dugg Sénégal parce que ñooñu seen pexe bu njëkk mooy faagaagal kër diine yi te Ousmane ko loolu lay dox moom ak ñu àndal suñ defee loolu nag alkami yi nga xam ne ay seen xaalis financement yëpp ñu ngi koy jaarale ci ay euh, Kopor Express yooyu ñooñu aidé leen képp fu ñu bëgg yëngal dañuy dem dugal fa benn cent millions foofu yëngatu bu yàgg bu ci kanamee arme ay arme la ñuy dugal si réew mi bu ci kanamee ñu def lii bu ci kanamee ñu def lii après léegi doo doo dégg di Tiwaawoon doo dootoo déggati Cambérène dootoo déggati Malika lan ngay dégg ay frères musulmans Sénégal léegi kër diine yi amatu fii léegi lii yàlla ñu ci yàlla musal ñun loolu moo ñuy régulariser loolu mooy moo stabiliser suñu réew suñu cosaan la bokk suñu aada la bokk kër diine yi. voilà euh, Abdoulaye Mamadou Guissé est-ce que yow loo xalaat si amnistie euh, Karim Meïssa Wade ak Khalifa Ababacar Sall pour ñu mën a bokk ci élection présidentielle bu 2024 ñu ngi koy laam-laamee est-ce que yow d'accord nga si waaw wala déet. man li ma xam ba xam mooy ku mel ni Karim Meïssa Wade doomu Ablaye Wade baayam di liggéeykat moom muy liggéeykat moom nga am benn remarque booy def si moom rek mooy. dañ koy tuumaal boobu ba léegi mosoo dégg mun ne li ñu ma tuumaal maa ko def euh, Karim Wade buñ koy tuumaal ba léegi mosoo dégg mu yëkkati baatam wax maanaam bi mu génn bi ñu ko génnee réew mi fi mu toog la toog su ko neexoon def ni gaa yëpp bajantu yëngal yëngut yëngul bu ko neexoon ut ay force lobby ci Afrique yoo xam ne dañuy ñëw suba ñu des dindi fi Macky Sall ci coup bu neexoon Karim mais Karim Wade dafa xam ne li bàyyam waxoon man Ablaye Wade du ma jaar ci ay néew pour dugg pale loolu la xam moo tax mu teey noppi toog di xaar élégance boobu muy am taxawaay bu rafet boobu mu am kooku ak li nga xam ne jiiñ nañ koy mu ne mu te musul toog ba nangu ne def na ko kooku jar na am na tie kooku jar na buy jóge Qatar di ñëw ñu tertu ko aéroport ab euh, euh, Blaise Diagne jaarale ko stade stade lay Wade yóbbu ko point e këram wala Kébémer kooku jar na ko. d'accord pour Karim pour Khalifa Khalifa Sall d'avance. 15 hmm. lañ ko ji. ñu ne ko dafa créé de détourné ay ay milliards ceeb dugub ak lu ne au lieu que mu ne defuma ko dafa ne dama fekk ñu ko def ma def ko kon kooku dañ ko war a ràpp ci kaso kooku euh, liberté bi ñu ko may nii sax pour man dafa ëpp kooku dañ ko war a def ràpp ci kaso warul bokk ci élection Ousmane Sonko mën kaam waxatuma ko. kooku waruñu ko sax seetaan dañ ko waroon depuis boobu ba léegi kaso la waroon fekk nii nii nii bi mu ne dem naa fa naam dem naa fa rek dañ ko waroon yóbbu tëj ko. d'accord sa parti Fulla ak Fayda euh, Abdoulaye Mamadou Guissé est-ce que dina am candidat pour élection présidentielle yi. ñun dañoo gis. Mm. réew. Mm-hmm. dafa am nu muy doxee. démocratie ñun même bu dee parti bu ndaw lañu comme ni ngeen ko gars di waxee parti yu ndaw yi même bu dee ñun parti bu ndaw la ñun suñu parti xel ak xalaat a koy doxal parce que parti culture la. ñun culture moo ñuy dundal te culture bi njëkk mooy culture républicaine culture démocratique te culture yooyu ñu ngi ko doon ne sunu maam yi maanaam dañuy bañ waaye aussi bu ñu demee ba dajaloo ne nii la ñuy doxalee ñu nangu ko léegi dañ ne élire nañu président de la république nañ ko bàyyi ba mandaam jeex parce que Macky Sall mu ngi jeexal deux mille vingt quatre mais janvier deux mille vingt quatre mu ngi dem vers des élections campagne électorale dépôt des candidatures bu boobaa sunu ci liggéey bi ñu nekk actuellement mooy xool di nas ak nocci ay alliance ak candidature su dee ñun war nañu nekk candidat suñu moyens yi ak possibilité moyens ñu nekk ko su dee nag ah, coalition la ñuy jëm xool ku gën a positionné ñu ñu jiital ko ci loolu aussi ñu ngi ciy liggéey waaye élégance maanaam rafetul ñaaw ñaaw na sax nit nekk ci mandat ngay wax waxu élection yi di ñëw ndax dina nekk candidat wala du nekk candidat wala wala dina def mandat wala def mandat man li ma li ma xalaat mooy nañu bàyyi le jeu démocratique euh, poursuivre son cours maanaam ñu topp ko. Mhm. ba ba ne suba la euh, dépôt ouverture dossier commencé boobaa nag. ñu commencé discuter affaire candidature. Ouais. man loolu laa gis. am na ñu ne nañu libéré nit dof yow d'accord nga pour la liberation de nit dof gannaaw kàddu yi mu yëkkati mi ngi ci kaso bi actuellement. non mais xam nga man pour man euh, pour am maanaam di euh, d'échec bi am lan moo ko indi lajj bi lajj bi am ci réew mi lan moo ko indi mooy mooy yoon amatu fi ku neex loo neex def mais pourquoi nit dof taxaw di saaga ay nit di menacer ay nit ñu koy ñu koy libérer pour lan du question man d'accord naa wala d'accorduma mais xam nga lu ma d'accord ku nekkul ci yoon ñu teg la ci yoon man loolu laa d'accord man nit dof intéressé wu ma ma sàmba intéressé wu ma demba intéressé wu ma tey Macky Sall bu defee lu dul yoon boo ma laaj dama naan nañ ko jugé parce que loolu mooy yoon dans une république. Mhm. Emmanuel Macron dañ koy jugé Fillon François Fillon fii la dem élection ñu ne ko dafa ab ay ay ay ay doomam. mais ñu ñu ñu ñu ñu di dindi candidature te moment boobu moo gënoon placé ci France que Macron te fekk man boobu maa ngi France ci ak ci wetu Ablaye Wade bu demoon élection gagné élection yi François Fillon waaye léegi ñun ñun ñun dañuy xool teetaan nii rek daal mel ni ay béy wala ay xar wala ay nag mooy ñi may wooy le syndicat du du vol di crime ah et de ñoo ñu viol ñooñu bëgg jiite suñu réew mi wala ay naan ay rappeur la rappeur boo xam ne dañoo foot fan nga toj Rihanna gis Rihanna Rihanna barki dem nga ko gis euh, fële muy muy tëgg ay milliards de personnes di fa di fa nekk ñooñu tey bu la neexoon suba bu ñu yeewu bu ne dem leen biir palais jël président Amérique ñu gars yi génn président Amérique mais gis doo leen gis ñu wax ci yooyu wala bu ñuy wax dañuy wax luy ay nit di di jiiñ nit ñi di leen menacer de mort waaye léegi kooku ñuy may laaj man ndax nañu téye wala ñu bàyyi man aw ma seen justice ku ko respecté wul dañ la war a téye. voilà euh, question juste une minute en tant que euh, culturel yow euh, naka gisee politique bi nga xam ni euh, njiitu réew mi teg na ko ci wàllum politique est-ce que baax na wala baaxul juste une minute Abdoulaye Mamadou Guissé. bon man man man euh, man politique euh, président Macky Sall. Mm-hmm. comme ni mu ko waxee keroog ouverture fees naag am na yu sur le plan xaalis xaalis bu dugg na ci culture ci bi mu nekkee président ak léegi Ablaye Wade dafa créer infrastructure culturelle majeure ay monument de la renaissance musée des civilisations yooyu mais Macky Sall dafa ñëw jox ko de contenus financiers mais man li ma nanguwul ci politique culturel Macky Sall mooy xaalis bi fu mu war a dem demu fa comme ni ko rapport IGE bi génnee mais fonds Covid bi milliards yu bëri acteurs yi gisuñu ko tey am na nay financement yu bëri yoo xam ne ci culture bi acteur yi gisuñu ko man man damay toog ak créateurs yi bés bu ne quatorze régions du Sénégal dama fay déplacé wu di dem mais mais tey soo gisee sax yenn acteurs culturels yi topp euh, ñenn ñi yenn opposants yi leen di gëmloo yàllaa ngi jam ñaajo mais parce que milliards yi président de la république di def ci culture bi eggul ci acteurs yi te c'est la mort dans l'âme que je le dis donc ñun tey suba bu ñu demee ba xam ne élection jot na dina ñu wax li li li tax politique culturelle président Macky Sall lajj dafa lajj man pour man. dafa lajj waxtu bi ma wax yow dafa lajj te lenn lajjulu ko mooy maanaam fi euh, initiative yi ak action jëm contrôle amu ci suivi amu ci dañu waxante dëgg te loolu fu mu amee artistes yi dinañu kaas dinañu kii te boo moytuwul soo demee élection da nga sa bopp loolu laa amul lu may wax. Abdoulaye Mamadou Guissé Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal ci sa disponibilité. merci Goumba. voilà may fàttali ni remercier mais dama ci dolli lenn rek. waaw. te koy wax man soo bëggee nga invité ma man nangu wuy tontu la sa invitation. Mhm. mooy man tey ay site ay rajo tele yu bëri dañ may woolu pour invité ma mais du ma dem ndax man su ma leen di suivre ni ñuy defee da ngay xam ne ñoom ay quartier général Ousmane Sonko la. Mhm. te loolu warul am ci réew. réew presse dafa war a tëddee njaaxanaay nan la presse boo xam ne yow boo bëggee critiquer président bi fi nekk yow sa bopp ngay def li président bi def yow loolu ngay def yow tëddoo njaaxanaay yow defoo yoon doxoo ci yoon mais kon moo tax ma ne dëkk bi constat d'échec lañ nekk société civile amul ci réew bu amul ci réew boo xam ne ah société civile toog di añ ak opposant nga xam ne mu leer na carte Pastef nga jënd Alioune Tine carte la yore kooku ak ñeneen ñi mais ñooñu nan la ñu mënee wax nit ñi Euh, Sénégal ni ñuy wala ne wala ne mais attends nañu may jàmm dama ne justice bi nañu jóg ñi fi euh, bëgg yëngal réew mi ñu delleen na leen ràpp ci kaso bi buñ ko defee léegi dëkk bi normal ñu ñu dox seen soxla liggéey seen liggéey voilà wasalaam merci maa ngi lay remercier bu baax ci voilà Abdoulaye Mamadou Guissé yow yaay président bu parti Fulla ak Fayda président bu observatoire de la musique et des arts du Sénégal nekk poète écrivain diplômé en ingénierie culturelle banque finance jërëjëf banque finance jërëjëf banque finance